ngay ñëw sax ak euh, Georges Diop nga xam ne mi ngi ci doon ñëw bu baax a baax ci kàddu yi ñu fa dégg est-ce que tey nekkul un dans le forum moom lañ nemmeeku file ca Grand Théâtre euh, man du ma wax dialogue hmm. man lu may wax rek mooy euh, tout simplement euh, une pratique républicaine euh, républicaine plutôt muy lan muy dañoo yàgg wax ni mairie démembrement état la tey lu mel ni euh, Dakar aye muy lan capitale Sénégal mu mel ni forum mondial parce que waxuñu sax forum boo xamante c'est départemental wala c'est communal on dit forum mondial mooy lan mooy bëri na dëkk yu ñëw ay kilifa yu ñëw ay kàngam yu ñëw donc seen normal ku ñuy woowee président de la république nga xam ne moo jiite ñëpp ñëw war a mën a ibbi Euh, forum principal bi loolu moo amoon grand théâtre tey. Mhm. mais am na lu ñu gisoon euh, forum de l'eau bi nga xam ne junj nga ko sànq gisoon nañ li ci jóge woon boobu xëy na bon situation am na nu mu woon mooy forum bi ñu doon amale ca Diamniadio bii ñu di ko amal tey ñu gis le président mu wax que ni même euh, Barth mi ngi doxal bu baax apprécier même son travail pour première parce que dégguñu ko woon mu wax ko ci yeneen maire yi nga xam ne ñoom la fa nekk ndooloon loolu aussi jaaxal ñu bari. xam nga Olof Ndiaye da naan oui nga may ñu rek ñu déglu élément bi sax laataa ñuy desuwaat Barka Si Diop bu fekkee ne élément bi yemb na ñu déglu ko laataa ñuy ñëwaat ci plateau bi. ensemble pays du nord et du sud autorités étatiques autorités territoriales secteur privé leaders d'opinion citoyens nous devons rester mobilisés pour contribuer à la recherche de solutions concertées et efficaces J'espère que vos assises nous permettront de poser un jalon de plus dans ce sens pour un monde meilleur parce que plus juste et plus solidaire. Je félicite Madame le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Madame Victorine Day, et l'ensemble de ses équipes pour les efforts consacrés à la préparation du forum. Je tiens tout spécialement à remercier et à féliciter le maire de Dakar, Barthélémy Toye Diaye. Je lui disais tout à l'heure Barthélémy yaa ngi doxal de <laughs> mais mu ngi doxal mu ngi c'est bien vraiment bravo. Et comme, comme disait l'autre, comme disait l'autre, je dirais à ton papa Jean-Paul, qui lui est avec moi, que ton fils a bien travaillé. voilà mi ngi noonu mu di kàddu njiitu réew mi Macky Sall Pape Konaté kàddu yi fan lañ koy teg ban contexte. <laughs> xam nga euh, déjà sànq yaa ñu wax ci euh, forum mondial de l'eau tubaab daa naan mieux vaut tard que jamais. muy lan su fekkee président de la république comprendre na ni que lu mel noonu ville moo koy organiser ville moo koy porter ba nga xam ni bu njëkk ba defoon nañ erreur tey ñu mën a gàgganti seen bopp donc mieux vaut tard que jamais boobu noonu day mun a am euh, président de la république ba muy laajte sénégalais ay seen suffrage dafa newoon dafa amoon benn yéene muy lan développer dëkk bi dox développer nag mooy doxal dëkk bi tey bu fekkee dem na ba gis ni am na benn màppandoom wala sax benn opposant politique wax xam moo ñu doxal donc loolu wax dëgg dara nekk ci mënuñu def rek lu dul di ko rafetlu parce que ce qui s'est passé au Grand Théâtre muy lan muy ñëpp gis nañ ni que dakaar depuis le maire Barthélémy Dias ba mu fi nekkee ba léegi neewu ma ni que lépp rafet na neewu ma ni que lépp yemm na mais moo ñu doxal comme nu ko président de la république waxee mais il faut aussi que les sénégalais puissent comprendre une chose muy lan muy maire Barthélémy falu ñu ko pour muy defante wala pour muy xuloo comme aussi président Macky Sall faluñu ko pour muy defante ak muy xuloo c'est-à-dire président Macky Sall dafa war a comprendre ni moom dañ ko fal pour mu développer Sénégal c'est-à-dire fal ko pour mu développer Sénégal mooy dafa war a jël lépp loo xamante moom la dëkk soxla muy lan collectivités locales yoo xamante ils sont viables ils sont durables ñu mun a ànd ak ñoom liggéey dëkk bi Barthélémy Dias dafa war a xam ni tamit état du Sénégal wax dëgg mairie démembrement de l'état la donc nag kenn xaaru